nga waxe dugg ci dara ci jàmm génn ci ci jàmm sant rek moo ñu war eh, mun nañ wax ne lenge yi àgg nañ ko joxe du tey xanaa tey lañ ko doon bind ci kayit pour wane ne depuis le 31 octobre 2020 messa euh, mission CNG bi Alioune Sarr jiite woon jeex na eh, léegi mission CNG bi Ibrahima seen ñu xame ko ci Bira Sène yor mooy commencé tey nag toog nañ jébbal nañ ko li fi nekkoon euh, dina leen ko gën a dëgëral euh, ci kayit yi yëpp juboo nañ ci kàddu kon nag daan rek di ko ñaanal yen bi yal ko yàlla téye Eh, xamuñ ko mën mais xam nañ ko yàlla jàppale yàlla ko yàlla jàppale di lancé appel nag milieu làmb coow bari na mais problème yi bari na nit ñi bàyyi gis seen bopp te gis njëriñi réew mi ñi yàlla def ministre bi boole kook ñoom pour ñu liggéey na xam ne tànnuñ leen parce que ñoo mun ci réew mi wala ñoo ëpp xam-xam mais yàlla moo ko dogal te seen tànn pour jàppale président Birane pour mu réussir mission bi parce que gétti xar sax suñu àndee foog mu am xar mu jiitu foog mu am xar mu ne ci gannaaw mais xar mi jiitu bu mu foog ne moo ëpp doole ci xar yi xar ma ca gannaaw it bu mu foog ne moo gën a yaafuus ci xar yi wante nag su wax jotee wala rendre compte ni koy wax amee eh, président bi mooy rendre compte kon nag équipe bi yëpp jàpp ci gannaawam liggéeyal làmb am na fuñ ko fekkoon am na fuñ ko yóbbu ñoom itam ñu sukkandiku ci base boobu pour gën a yokk étage bi et eh, di ñaan aussi équipe bi ñëw hmm, yéen taskati xabaar yi jàmbaar ngeen de mais waxoon naa kenn ci seen mag yi ne leen. yéen a defar làmb ji mais yéen a ko yàq yéen a defar làmb ji mais ko yàq na ngeen góorgóorlu bi xam fan ngeen di tàllal seen micro na ngeen góorgóorlu bi seen liggéey doon luy jëriñ làmb te bañ di insister rek ci diw juboowul ak diw tàllal ku nekk mikro xaste beeg yooyu ak sos yi loolu du defar dara e, jàppale leen équipe bi ñëw ngeen yëkkateendoo ak ñoom dóorandoo pour làmbi Sénégal jëm kanam réew mi gën a jëm kanam ci jàmm rek soo gisee tey ñuy wax tey làmb dañu am jàmm réew yi ñu wër nekk ci xeex ak yooyu taluñ li kon nag suñu jàmm jooju nañ góor-góor lu gën ko dëgëral pour njëriñi Sénégal jërë ngeen yomb ba ak ñàkk yomb dama koy dund waaye li ma yëg ci joxante leng bi mooy sas am naa tool bu ma war a bay mu béy na ci waa ay waar waaye des na pour ñu bay la des yàlla dogal nag eh, ministre des sports monsieur Matar Ba mu gërëm ko sant ko ne ma li des ci waar yi kañ nga bay ko confiance boobu gërëm naa ko ci sant ko ci maa ngi ñaan suñu borom ma mérité conseil ak équipe bi nga xam ne moom la mu booleel pour ñu bokk liggéey sas bi du man rek euh, xam nga ci équilibre dafa day fekk poids bi nga xam ne mu ngi war a supporté pàcc bu nekk yëg ci la mu ja war a yenu gëm naa ne am naa yaakaar ñu rafet njort ne bi ma boole ku ci nekk dañ ci sa waar dañ ko ci bay euh, ma di ci kontaan ci fànn yi nga xam ne du man rek loo xam ne dama nga doxal ne yaa ngi ànd leen ngeen doxal donc fànn woowu moo tax ma ne yan wi diis na ko président ñaane ñi diis na waaye yàlla na yàlla téel yàlla yàlla ko yàlla def ouutu euh, ku def vingt six ans fii euh, doo xëy xëy ne waa lii da yomb la ndaxte ku am confiance dix sept ministres nga wuutu ko du yomb mais nag yaay xam mission bi la ministre des sports jox muy Matar Ba nga ne ministre mission bi naa koy doxal ba mu sëkk euh, ma gërëm ko ndax bàyyi na fondation ci biir continuité bi ca fondation bi la mu fi bàyyi faray teg suma fondation pour jéem a yëkkati ñu dem ci kanam dem ca kaw ak équipe bi nga xam ne moom moo fi nekk loolu daal mooy li nga xam ne xam naa ko xam ne évidemment du ma ne suma xol lay topp mais suma xel lay topp ndax suma xel daf ma ne lii sas la naka la ñuy def doxal ko ak équipe bi naka la ñuy def ba équipe bi moo tax ba war nañoo daje ci diir bu gàtt xoolaat incha allah mercredi xaw ma ku la ko wax <laughs> da ngeen da ngeen yow da ngaa sopp yow la bu ma xere donc wax dëgg yàlla ñooñu eh, bu ñu toogee danañ xool naka la ñuy def de vraiment eh, la de mission bi ñu jox ñu seet fan lañu ciy jaar ba yegg ci délai yi ñu fixé loolu waxoon naa ko maa koy waxaat. di gërëm nag kii kii mooy kii mooy nga ne mooy Gaston Mbengue le Don King fu làmb taxaw taxaw na fa fi mu ne nii ñu ngi koy oo ci beneen cérémonie officielle mais ne na làmb ji du ma ko bàyyi kenn ci laa ne ci laa bokk maa ngi ci te dafa jël te dafa jël engagement ne def ci jàpp moo tax mu ngi monté ay combat dégg naa dégg naa day monté ay combat <laughs> dafa rechuté wéeru na waaye rechuté <laughs> vraiment ñu ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla jàppale ci chantier mu sumb premier vice président Maïssa Ndiaye vraiment ñu gërëm ko moom mu nekk aussi artiste di artisan ci lamb ji jóge région de Thiès xam nga mu le Matar Ba nit ñi xëy na suivre nañ ko ci euh, conception ak philosophie bi xam nga jël ñaari président CRG duggul leen ci comité bi ñu nekk ci kaw loolu mooy que ne Dakar jóge na fi waaye également compétence nekk ci biir kaay la ñu ñëpp jàpp ci pour yëkkati làmb mu jëm kanam ñu di ko ci gërëmaat di ko sant ci vraiment recherche boobu mu fuyee fuye fuyee fuyee ba gis ne ñii dañuy jox làmb vraiment loolu ñu ko ci gërëm di koy sant di gërëm équipe bi fi jógee ndaxte def nañ passation de service léegi maag monsieur le président Alioune Sarr joxe nañu documents yi liir nañ ko juboo nañ ci xam nañ ne équipe bi fi nekkoon ànd ak moom di ko jàppale liggéey na wax dëgg yàlla liggéey na ca lañ liggéey ñun fa la ñuy tegee suñu fondation rek pour jéem a yëkkati vraiment li nga xam ne mooy effort bi ñu soxla mu effort national ci wàllu làmb pour ko vraiment fi mu ko fi mu yemoon bu tàmbalee fa jëm kanam yàlla ñu yàlla dimbale jàppale ñu ñëpp ñu tàll loxo ñëpp aussi ak lu làmb waa làmb yëpp ñu leen di ñaar ñu ñëw jàpp ci am nañ ay Sénégal yu ñu choisir daf leen ci arrêté bi ñëpp xëjuñ ca waaye kenn ku nekk muy acteur direct and indirect nga xam ne làmb ji ñun la foo toll nga am xalaat bu rafet boo jegee Maysa Ndiaye nga ne ko Maysa ah ñu nii yenn vice président Mangade ak ñeneen ñoom ñoom eh, Isabel ñooñu ñëpp ngeen wax leen lii ak lii gis nañ ko bu ñuy réunion ci sotti xalaat ak wéccoo xalaat vraiment ñu xam naka la càmpare yooyu yëpp làmb ji du jeex administration bi jeex du dem rek parce que day évoluer y a des faits qui viennent et qui surprennent tout le monde il faut ñu gérer ko aussi donc loolu ñu xam ne làmb moo demee noonu coow li bari na mais nañ tegum coow li léegi te xalaat naka la def ba làmb jëm kanam sant yàlla euh, julli ci yonent bi gërëm ministre des sports gërëm Alioune Sarr mi nga xam ni tey moo joxe lenge yi parce que liggéey bi Alioune Sarr def ci làmb Sénégal gépp xam nañ ci dara gis nañ ko it mais nag millier boo gis surtout milieu làmb tout temps dana am euh, ay li ñu koy waxee faiseur de trouble da ciy am. te kooku c'est sénégalais euh, njiit bu fi mën a nekk même ci bopp réew mi da gis nit ñi taxaw di lay yekk lu ne donc euh, loolu suñu feebar la mais ñun ñi nga xam ne ñu doon jël suñuy koppar ak di ko débrouiller yi xamuñ fu ñu koy jële di ko jox CNG bi mu koy gérer dina ko gérer xam na ni ku ci wax dëgg jub danga xam ni Alioune Sarr ak équipe am téye nañu làmb ji dimbali nañu ci làmb ji ba nga xam ni ñun suñu xaalis mënoon naa nax saay wala làmb ji yàqu mais ñoom ci seen liggéey ak seen njub moo indi làmb ji tey fii soo gisee tey Bira Sène le nouveau président ñemee jël xëy na su fekkoon ni keneen lay remplacer sax du ko ñemee jël mais dafa xam Alioune Sarr liggéey ak moom parce que moom ci comptable gestion bu njëkk bi la parce que depuis 94 mi ngi ci làmb ji ànd ak Alioune ci làmb ji donc ministre bi euh, jël na leen moom ak Maysa dafa décentraliser sax parce que ci régions yi la jële indi parce que Sénégal nag du dakaar rek Sénégal gépp la donc euh, tey ñëw noonu def nañu seen passation de service zéro faute jàmm rek am fa nit ñi passation de service nag kenn du ko divulgué kenn du wax lu nekk ci kayit li ngeen di mën a sob ak di prêcher le faux pour avoir le vrai yëpp loolu mënu leen koo am mais li wóor ba wóor mooy làmb ji moom loolu su fekkoon ni lépp nii làmb ji la leere ci li am fii kon Sénégal jëm ca parce que lépp lépp a set wecc Alioune Sarr wane na ni liggéey bu rafet la fi def Bira tey dafa ñëw pour égaler œuvre Alioune parce que dégg naa ko sax bi muy wax fondement da ngay nga teg ci kaw mais moom deful sax euh, Alioune Sarr bàyyi fondement Alioune Sarr immeuble la fi bàyyi moom kay day rénové ak di peinture ak di def mais Alioune Sarr immeuble la fi bàyyi léegi nag na ko rénové di peinture fu taxoon mu ko euh, fomp ko moo gën a set loolu lañ koy ñaan di ko ci ñaanal yàlla it loolu am mais daal Sénégal surtout yéen de la presse yéen yéen a war a dimbali affaire sport ci fànn yëpp muy ci politique bi muy ci làmb ji muy feneen parce que nag su fekkee ni lu ngeen gis it bindu ko Sénégal du jëm kanam de c'est bien vrai informer c'est bien mais éduquer moo gën a baax informer parce que réew mi ñun ñëpp ko bokk léegi-léegi mën ngeen a gis lu yàq sax Gaston di yàq ngeen ñëw éduquer ma ba loolu defaru mais euh, tàmm rek Gaston ngay xuloog euh, Bira nga ñëw jox ma micro moo wax dem ci Bira jox ko micro mu wax loolu defarul te ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak bay sunu doom yi ñooy bëggante sëy ca duñ ci man dara donc defar defe naa moo leen war yéen ay éducateur ngeen jëkk a nekk avant ngeen war a jëkk nekk avant ngeen nekk journaliste ñu euh, vraiment daal loolu rek lañ leen di ñaan presse bi yëpp nag moom ñoom lañ koy ñaan ñoo mën a jàppale pour ñii seen seen mission ñu accomplir ko convenablement jërëjëf waaw pan euh, maa ngi woon foofu ci maa ngi woon foofu ci armée yi après dem naa këram fu laa nekkoon Alioune Sarr xam naa ni moom ku mas a nekk ci làmb ji rek def na ci loo xam ni ku feebar ku tëdd ak ku wér loolu la ma xam xam naa ni it foofa dana fa dem Bira Sène na ko Alioune Sarr daan defee nga xam ne délégation la seen ku mas a génn àddina fi wala nga am naqar wala même bànneex CNG bi mësula tarde dana fa dem def la mu war a def Bira tey moo fi nekk dana fa dem ak ànd ak équipe bi def la mu war a def Alioune Sarr dafa am yeneen relation yoo xam ne du relation lamb rek moo Balla Gaye ak famille yu Balla Gaye kooku moom jarul sax euh, ngeen di laaj ay yenn yi man démb ci armée yi rek am na ku ma laaj toppama ndax bi Balla Gaye feebaree ndax daan nga ko ma ne ko yow luy seen ci luy say yoon ci ku dee man du ma nit ba nit dee pour ma ñëw di wax ni dama koy defar wala dama dinaa ko defal wala lu may li may su fekkee damay def lu may def fii laa koy waxee ci armée li te yéen loolu ngeen bëgg yéen loolu genre genre coup yooyu rek ngeen bëgg ci yooyu baaxul. Eh, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ki dem yal na ko yàlla atte ci yërmandeem yal na fir daw sa doon dëkkukaayam xam naa ko xam naa ko bu baax sax mun naa wax loolu. temps ba muy bëre ba mu bàyyee bëre eh, ku bëggoon li mu doon def la mais yéen waa presse bi démb ak tey maa ngi leen dégg ngeen di wax ci moom mu leen wan ne champion de boxe la woon est-ce que xam ngeen loolu ci moom mais kenn ci yéen bindu ko mun na am sax ndam yi am ci boxe bi sax moo gën a rëy peut-être ndam yi am ci làmb ji ci carrière ci làmb ji donc euh, foofu da leen gën a gëstu aussi ci gars yi et lim fi bàyyi yal ci yàlla teg loxo comme ni ko Gaston waxee nag ñun mosuñ di fësal li ñuy def waaw dañuy def ci sunu doxalin te yàlla tax e nañ doon doxale nag dara du ci changer parce que ñun ay amateurs yi la te nit ñi mun naa ne làmb jee ñu boole woon mais relation diggante ay doomi aadama lañ gën a fonk moom lañ gën a sàmm e di ñaan rek. moom ak ñeneen ñi ko jiitu ak ñi ko fay fekk suba yëpp yal na leen yàlla atti ci yërmande jërëjëf. merci merci non ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon.